bu ñu amul suuf suñu bayee fu ñuy bayee war nañu napp bu ñu amul géej gu ñu nappee fan lañuy nappee dañuy ëlbatiku def ni seen morom seen moromu papa yi jël gaal yi dem rey seen bopp ci biir géej gi te li ñu am yaakaar naa ci biir suuf si ci Afrique gii li ñu fi am les ressources naturelles bu ñu ko toppatoowee yaakaar naa ni benn xale dootul am sañ-sañu di génn géej fii di jël gaal di dem di xaru ji yenn yi xaru la te loolu pour ñu éviter ko mooy yaakaar naa ni gis nga xale yu ndaw yi tey ñii ma taxawal amul kenn ku ci xam piqûru tétanos xamuñu ko parce que doxuñu ba gis kenn ku pontu jàmm parce que lu waral loolu feeraay bi dañ ko valoriser mais xoolal li ma sol lépp matul kilo ñu ne la demal ramasser ko industrie bi dina la jàppale nga yor ci sa njaboot yor ci sa kër mu ne la dinaa ko jënd le kilo à 50 francs ñaata mbuus nga war a ramasser pour am dépense boo yóbbu sa kër te li ma yor lépp matul kilo buñ ko valoriser yaakaar naa ne mbuus dootul taxawaalu ci mbedd mi te et puis ce qui est grave te nit ñi bàyyiwuñ ci xel sur les cent quatre-vingt-dix-huit mille tonnes yi nga xamante ni dañ koy produire par an y a que huit mille qui sont recyclés.

petit sachet yi sip si ñëwul ah kayitu si ngom yi ñëwul yooyu yëpp soow ardo yi ñëwul yeneen objet yi nga xamante ni kenn du ko tudd on parle que du plastique bi ñuy gis ni mais yooyu ñoo gën a garaaw fuuf te yooyu yëpp bokkuñu ci lim bi te chaque jour ñu ngi koy utiliser man je pense que ni solution bi c'est facile bépp industrie bu fi nekk De produire plastique te monoco réutiliser recycler c'est pas l'appel nga produire donc état mën na pas de responsabilité bob. mais nous, en tant que citoyen li ñu nous ñi ngi koy def ñi ngi dénoncer ñi ngi wax tey alhamdulillah yàlla a na ba def na yenn société yu mag yi ñi ngi commencer di comprendre ñi ngi commencer di dugg ci système de recyclage comme groupe ki ren dugg na Patisen dugg na euh, Nestlé mi ngi waaj a dugg ak ñeneen ak ñeneen mais loolu tey jii benn industrie bu ci nekk bu responsabilité am li produit produire ci déchet mu nekk ci mbedd mi mu am équipe boo xamante ni da koy ramasser créer ay jeux concours créer ay manifestations yoo xamante ni dina permettre au moins ndaw ñooñu récupérer déchets yooyu mu jural leen tey beneen source loolu yaakaar naa ne bu ñu ko jàppee rek dese jeex ci dëkk bi xool leen sunu école yi ni mu mel kan moo fi xam fii CM Thiaroye Jidda Kaw école 6 CM Thiaroye Jidda Kaw CM Thiaroye jidd Kaw boo fa taxawee sa yaram day daw da nga yaakaar ni marché moo fa nekk doo gis école bi ay cantine rek ngay gis lan moo ko waral comportement boo xamante ni kenn comprendreul lu neex waaye def lu neex waaye wax ci réew mu toll ni Sénégal ñu ne dañu bëgg réew moom émerger non du ñu dem on bouge même pas ñii ñoo nar am très sérieux problème te sérieux problème boobu pour nous, ñu mën koo éviter il fallait ñun ñu jël les devant, jël suñu responsabilité bu njëkk vers les années 80. budget mbalit mi c'est 5 milliards temps yi fi soit di nekkee ay ñoom siyaas aujourd'hui actuellement mi ngi ci 17 milliards te tey la réew mi gën a salte mais y a un problème y a un problème le coordinateur Ibrahima Diagne amul lu mu ci defut amul lu mu ci waxut mais gis nga tey Sénégal bu ñu bañee nga liggéey dañ lay fexee élimine la dañ lay élimine parce que bëgguñu kuy liggéey seen intérêt lu ñu lekk lu ñu def ci seeni poste la ñuy wër mais tant que jiitaluñu problème mu société bi problème mu askan bi problème mu génération future bi yaakaar naa ni lu bari du soppeeku ci réew mi te ñii ameel nañ leen àq ameel nañ leen àq kon ñun ñëpp nañ ci bay sunu waar ñëpp nañ ci bay sunu waar jërë ngeen jëf merci beaucoup merci les élèves merci beaucoup